ñu ngi amaat mbégte encore une fois ñëw jàkkaarloog yéen sunu mbokk internet yi nga xamante ni yéen ñuy suivre euh, fii ci Dakar Actu TV euh, di am euh, mbégte également di recevoir koo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci li nga xamante ni moom moo di ay médiation en quelque sorte fële nga xamante ni moom moo di Mali ci diggante maanaam ak jafe-jafe yi nga xamante ni yëpp ñu ngi ko fay nemmeeku jamono ji aussi euh, di préciser euh, tay dañ ñëw fekk ko fi nga xamante mom modi euh, restaurant Le Dionewar fété fi ci Almadi au niveau donc de la pointe des Almadi. ngir waxtaan ak mom ci li nga xamante mom modi tollu wayu tolluwaayu notamment li nga xamante xeyna xëy jot na fi am ci actualité mais également dinañ aborder li nga xamante mom moy question d'actualité notamment dans la sous-région ak li xew ci Mali donc kooku du kenn ku dul ki nga xamanteni ni moom di Aliou tin di fondateur donc Africa Jom Center euh monsieur tin ñu lay euh, nuyu encore une fois di am mbégte bu baax euh, di la fekk fi nga xamanteni yag nga fi ñew mu nek euh, vraiment milieu bu symbolique. Hum. par rapport ak ay activités yi nga jot a amal. waaw ah, jërëjëf waaw xam nga fi euh deug deug fi la daan <laughs> liggéeyee sax quoi. mooy mooy Dionewar.

Mhm. fii ci restaurant bi fii ci restaurant bi waaw. Mhm. Euh, waxuma nag euh, ñu bari ñoom sama xarit ñoom Mamadou Lamine Diallo. Mhm. Euh, ak ñoom Mor Ngom Ngom xam na fi bu baax. <laughs> Mor donc fii fu su foo xam ni bon pour waxtaan ak kii dafa nekk fu fu baax. dangay nga da géej gi. waaw dama naan fii la fii mooy bakkanu bakkanu Afrique fii la bakk fii la Afrique di noyyee.

àdduna sax lay wax parce que fim toll ni ñu bari impliqué wu impliqué wuñ nañ ci. muy jafé euh, jafé yi xewé feulé ca Mali. Euh, ñu néméku le 18 août bi passé euh, ki nga xamante mom modi président Ibrahim Boubacar Keïta ñu dal di koy enlever ay putschistes dal di koy enlever dal di koy manam pousser vers la sortie en quelque sorte ba mu dal di présenter démission tay euh, bi nga yëgee yow en tant que médiateur wala nga nek ko xamné peut-être xeyna am nga ben touche particulière par rapport à ce qui se passe euh, au Mali euh, nan nga ko jangaté ban lecture nga ci am globalement. waaw xam nga damay léral ni man may expert indépendant. Mm-hmm. bu Nations Unies au Mali. Mm-hmm. sama liguey moy dimbalé gouvernement Mali. Mm-hmm. ci lepp lu jëm ak ak yelleef doomu aadama ci ce liggéey boobu may def tam comme expert indépendant dama ci liggéey ak G5 Sahel dama ci liggéey ak euh, CDA, dama ci liggéey ak Union africaine dama ci liggéey tam ak agence Nations Unies De te 17 juin bii bi ma defee sama rapport ci Mali Et comme ni nga ko waxee rek mon ma sama rapport man sax dama jaaxle amul ku ci intervenirul ci groupe le pays les P5 comme on les dit les les cinq membres du conseil de sécurité nous dañu intéressé wu ci situation. Mali lu waral intéressé concrètement ban particularité le rapport bi Madame, euh, Mali ak euh, enjeux sécuritaires yi fa am c'est pas seulement des enjeux régionaux c'est des enjeux internationaux. Madame, c'est internationaux Madame, si vous vous jafe yi nga xam ne Moyen-Orient. ay siri ak euh, jafe-jafe yi nga xamni mo amone mo am ba légui sax li bi la joggé mbiri mi ñew donc seen kàngaam yëpp daanaka ñu ci bëri Mali tok ça veut dire que tay Mali euh, bu daano baxul ci Afrique bu daano baxul ci aduna parce que euh, bu ñu ba nga amone nañ état islamique en Syrie bëss <laughs> bu am état islamique au Mali wala ñu am ko en Afrique day doy waar te situation bi tamit euh, dëgg neex yàlla euh, sécuritaire bi yàqu na bo boo ci Mali ci Guinée dayo yàqu na bo boo ci Niger yàggul rek bo xam à soixante dix mille à 70 km plutôt ci capitale bi Niger Niamey couré fofu gis nañ ñanga fa yakuna tamit yak bu jéggi dayo fi di Burkina Faso tay bo xolé li xew ci bande sahélienne bi fi ba libi xam lolu loolu tax sax bo jëlee situation Niger mu jafe fi ba libi toute la bande sahélienne doxul donc il faut africain, yi deggo deggo fi tollu ni dafa war ci ñi nga xamni ñu ngi opposition ci ñi nga xamni ne ñu ngi au pouvoir ci ñi nga xam ne ñu ngi société civile bi déggoo ñu xam ne lii nga xam ne mooy crise bi ñu am ñu foog ne Mali la crise régionale la crise sécuritaire bi feeñ na Mali bu metti feeñ na Niger bu metti feeñ na Nigéria bu metti feeñ na Cameroun bu metti feeñ na fii di Tchad donc commencé na di wane boppam boo demee beneen boo demee Togo boo demee Ghana wane na boppam biir Côte d'Ivoire donc bu ñu amee loolu ba pare bugg ci boole yeneen problème yoo xam ne dafay diis day tax day mel ni suñu suñu kii bi ba ñu moytuwul nu suñu région nga jàpp ni euh, lii di CEDEAO dogal yi nga xamante ni euh, jot na ko euh, jot nañ ko jël ngir xool nan la ñuy peut-être saafara jafe-jafe yi fa yi fa am. tey nga jàpp ni lajjul CEDEAO. waaw xam nga euh, ni CEDEAO lajj na yomb na ndax crise yu Mali yombul <laughs> crise crise boo xam ni dafa dafa am ay ay racines profondes ci problème mu gouvernance du tey yàgg na booy seet li màbbaloo ak li génne génneloo militaire yi tey presque les mêmes explications la ñu joxe en 2012 ci temps wu ATT parce que yéen wax nañ ci wax ba wax Euh, naka lañ koy waxeeti sax air. Euh, Toumani Touré. air mhm. euh, air naka lañ koy waxeeti sax air cocaïne <laughs> xam nga tay ñu wax air air cocaïne mais bo jëlé tamit rapport bi nga xamni mom la Nations Unies def muy rapport secret mhm. am na wax né amna des gens yo xamni ne des hauts placés des généraux yo xamni dañu connecté wu mhm. ak criminalité internationale ak corruption ak loolu <laughs> donc boy xol profondeur bi djegina na passé na passé na qui est dayo lolu ci ci crise la ba paré mu am un effondrement de toutes les institutions. c'est-à-dire que tay bo jélé institution yi ben par benn bi ci gëna reuy moy présidence de la république c'est quand il y a une crise profonde de la fonction présidentielle te crise crise bi du Mali la crise de la fonction présidentielle elle est pratiquement régionale mën nañ ni sax elle est un peu mondiale est-ce que tu dans le paradigme qui xam la forme de démocratie c'est une démocratie électorale intermittente une démocratie qui est euh, pour nous donner l'autorisation autorisation gouverner C'est rek une simplification excessive du concept de démocratie tuñ ci nit ñi xam nga nak lool tamit moy problème CDAO CDAO tay boko jël nga résumé ko nga ni chef d'état la rek jum nga parce que ñu bari conception bobu lañ ci am c'est-à-dire chef d'état yi ñom ñoo peut-être regroupé wu autour d'une structure pour xol peut-être nit ñi fa jafé jafé yi nga xamanteni ñom ñoom ñoo ñi fété ci ci Sahel li tax ñu bari gisun ci sen bop moy crise fonction présidentielle bi ma lay wax crise fonction présidentielle bi il faut ñu xolaat ko ñun africains parce que dans les années 70 79 tant que OUA lañ koy wax président yi nga qui ci image Afrique préparé wu enquête dàq leen mun la ci Idi Amin Dada aussi Bokassa mm-hmm. Bokassa sax bi droit de l'homme fii am nañ fi benn magistrat bo xam ne ñëpp xam na ko ba xam ko mos na nekk sax président conseil constitutionnel mu Youssoufa Ndiaye à l'époque mom lañ ñu yóbbu mu dem defi enquête sur les droits de l'homme bi mu dellu see joxe résultat yi té période bobu ay fukk nit ak juróom ben lañ rey dé mais Union africaine nee li mënatul am président bu melni ñu dàq doole jojo gisatuñ ko te loolu bi mu rek 81 ci lay am ligne commission africaine des droits de l'homme ak lépp donc si ñu fi Si toll nii a une crise fonction présidentielle nga une crise de la justice La justice justice amatu fa le problème Où est-ce fan la jógee. ci Afrique. non maa ngi waxuma Afrique Mali la lay waxal. Mali spécifiquement. Mali Il y a am. Mhm. pour mu nekk phénomène boo xam ne déclencher crise benn mooy conseil constitutionnel dafa joxe dañuy def benn bi mooy élection mhm. législative mhm. ñaareel bi mooy décision bi nga xam ne moom conseil constitutionnel joxe nit ñi am nañu te nit ñi d'accord ñu ne amul mhm. fa la mbir mi jóge événement 5 juin yëpp di dem donc crise de la justice foog ñu xalaataat tamit justice peut-être que fii la rek Mali la Mali la feeñe mais tey boo demee Côte d'Ivoire problème boobu am nañ ko boo demee Guinée problème boobu am nañ ko boo demee Sénégal waxi noppi donc il faut ñu xool benn par benn institution yi am depuis présidence ñu la fonction présidentielle xalaataat la fonction judiciaire surtout les plus hautes juridictions nga sommes ne mhm. ñoom ñooy teqalee ñoom arbitres. ay arbitre parce que mhm. arbitre yooyu bu ñu demee ba nga xam ne wóolootuñ leen mhm. dañuy siffler penalty fu mu war ta amul d'accord loolu yëpp mooy indi ay violence ñetteel bi parlement xam nga état de droit mu nga noonu ma limal parlement est faible donc euh, première première étape bi nga étape bi avons euh, ñun institution parce que c'est un je mm-hmm. jëlee Mali rek nga jël comme exemple. comme mm-hmm. cas vous avez étudié. étudier. Mm-hmm. c'est un effondrement global de l'ensemble des institutions. mais tout ça da inscrit dans un contexte sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. aussi bien au plan national qu'au plan régional. Si deful loolu. doo vous comprendre finalement yow nan ngay dogale parce que dogal bi tamit dafa am solo parce que président yi bu ñu dogee doxee Mali xol situation bi mu nekk xool ban menace la mëna nek pour Mali ban menace la mëna nek pour région yi ak décision mu buñ mënti jël lolu suñ ko xalaatul rek intégré ko du sotti donc da nga japp ni euh, euh, c'est-à-dire les origines de la crise pour yow peut-être dafa am ay euh, fondement yo xamanteni ci ci ci ci loolu la ko bu baax fonction présidentielle. Mhm. en crise mhm. Sénégal mhm. la fonction présidentielle est en crise avec le phénomène des gilets jaunes la fonction présidentielle est en crise ça veut dire que pour moi, le type le modèle démocratique bi en crise Lui, générer aussi comme forme de légitimité pour nous d'autres soirées. sori. gis Si France pour élire deux fois dans cinq ans nga cinq ans euh, Sarko euh, Hollande cinq ans Macron attention ans donc il faut que nous France mais il faut ñu sur une fonction présidentielle nan il faut ñu xalaataat suñu justice. pour mu am dolé. ba nga xam ne dina mën a xam nga teqale mo am solo. parce que boo déggee ñu un mécanisme de régulation. Moi comme tension rek xam nga bu amé courant bu ëppee fii rek. day exploser du dox. donc que mu am régulateur de tension régulateur de tension foog mu baax foog muy dox. li qui réguler violence dans les sociétés Moi ces mécanismes là justice dafa am solo. Mhm. société mhm. donc il faut que nous défassions la justice mhm. il faut que nous défassions parlement parce que nous, nous en notre nom mais si nous devons ba nous nous suñu président nous justice Nous avons ko nous parlement mais il paraît que nous nous a du Mali Mali d'accord

ngir jéem manam euh, waxal ñi di population bi est-ce que japp nga ni tay lolu euh, dina nasaxal li di démocratie réellement. parce que tamit buñu xolé ba ci biir peut-être euh, pour ci xëy na dañoo assouvir peut-être les besoins wala les envies de la population ñom ñom lañ waxal en quelque sorte. wa xam nga boko analyser nonu rek mun na nekk loo xam dafa yomb dama far fi wala faruma fe mais bu fekkene ne da nga bëgg def ben analyse scientifique. Hmm. da nga naan lan mo waral ñu génn.

di nga tok nga xalat contexte bi nga xalat fi nga né ak institution yi ni ñuy doxalé do am une prise de position mécanique bo xamné ci ay principe rek la principe yi amna solo lool il faut ñu top ci principe bi, parce que principe yi mo ñu té mais bo jëlee depuis le 5 juin ba 18 août jàppal bàyyil te it CEDEAO nañ ko ko seedeel CDAO am passe passe pour cette nan lay def ba crise bi réglé wu. fu problème am dem na fa. yakarna naa li cdao CEDEAO def Mali dafa ko fen motaxol si fokh ñu am touti justice ak reconnaissance ci li cdao di def. mais li bloqué cdao aussi il faut ñu reconnaître ko tamit. non lolu kay man beesu na ko reconnaître sax. xam nga buma le expliquer crise yi am. xam nga mëno am dans les différents pays crise yo xamné comme Mali la am mais à des degrés différents ba pare nga am CDAO bo xamné day impeccable non <laughs> foog mu am ay contradiction té contradiction yi gis nañ ko sax muy fenc ci bir CDAO donc lolu sax lu bax la que mu am ay contradiction que mu am ño xamné dañ naan ah ñi dé ñi ngi xalat askan bi ñi dé ñi ngi xalat Mali ñi dé ñi ngi xalat mm-hmm. ak ño xamné dañ dañu ah ñun dé suñu pouvoir rek la ñuy mm-hmm. nan lañ koy téye gis nga bu boba déjà mm-hmm. am ben fissure bo xamné mëna taxaw ñi nga xamné ne dañuy toppatoo intérêt général toppatoo intérêt et sécurité région bi. dajaloo Comme nous ñu ne parti politique nous sommes ñu mun pouvoir nous sommes en opposition. c'est que nous di liggéey la communauté des citoyens de l'Afrique de l'Ouest nous sommes une communauté des démocrates des citoyens de l'Afrique de l'Ouest parce que nous, il faut ñu tabax ko. sommes mu ne presque à l'état virtuel.

lan lañ ci yok ñu yokk ko ci. bu nit ñi démé ba japp ni les libertés fondamentales euh, dañu dañ ko trahir wala peut-être c'est voué en quelque sorte à l'échec euh, japp nañ ni xeyna peut-être la crise c'est au niveau de nos dirigeants en quelque sorte c'est au niveau des présidents. est-ce que faut aussi du problème mën naa la won ben ponk bu lèr ay ponk yu lèr rek. Mhm. léegi mhm. xam nga tay bo jëlee suñu justice nationale en Afrique de l'Ouest mhm. waxuma ne ñepp a dédé léeg-léeg di jël ay décisions yu bax ay décisions yu courageuses yo xamné tamit day aw yoon mais souvent ci décision yi nga gëna metti nga xamné dañuy juger état souvent décision yi nga xamné justice régionale ñokoy koy jël par comme cour de justice de la CEDEAO souvent moy gëna bax baax gën aw gën aw yoon gëna défendre li nga xamné moy droit de l'homme nit ki que justice nationale parce que la justice nationale vous faites que vous état surtout bu nekkee opposition ak pouvoir souvent c'est rare que le pouvoir gagne que le pouvoir perde. L'opposition mhm. perd perte toujours donc nous avons ñu def ba nga xam ne nañ justice régionale les africains mais les africains ah, dañuy aussi ay ay ay ay ay comme ay anglophones. Mhm. di jël ay décision yoo xam ne ñun day des ni buñ ko mhm. ah, donc ci ñi gëna indépendance mais bu vous ne am justice régionale li sur le plan national mais mbir yi dina est-ce que donc ñun am nañu capacité tabax ay institution yu bax am nañu capacité bu ñu ay nit ño xamné xarañ nañ bu ñu ay nit ño mandu nañ euh, dina wàññi li nga xamni moy tension yeeg instabilité la violence mais souvent même suñu justice régionale cour de justice de la vous bu jëlee décision da ngay gis état yi bañ ko cour africaine de justice bu jëlee décision nga gis gars yi daal di commencé ko ni kenn d'autre porte plainte contre man c'est-à-dire que il fonction présidentielle pour mu nek fonction bu baax pour mu fonction éthique il faut que président bi un ni du yalla il faut que le président bi nangou ni du il faut que le président bi mu nangou ne nit la rek te it ñin ñi tamit japp nit la que nit nit matul ñu ni président bi matul bu bu président président yi euh, au niveau de la sous-région peut-être. Euh, président ah, président peut-être mhm. président ak fonction présidentielle amna solo bo xamné dañ ko wara protéger bu baax mais li protéger président du rek mu am doole té pouvoir am du am limite li gëna protéger président d'abord ci bir fi mu nekk eh, mu am ay institutions yu baax yo xamné dañ ko naan ah fi nga mën a li dafa bokk ci ci ci li lor euh, Ibrahima Boubacar Keita dafa melni non gis nga limite. Mhm. limite bu amul. Mhm. lu ne mëna am. dafa manquer limite c'est que pouvoir foog mu am limite pouvoir bu amul limite day gumba te pouvoir dafa melni ni pouvoir dafa melni drogue da nga ci accro té pouvoir bu fekkee ne am nga ko ñu bari dañuy ñëw ci yow parce que fofu le lepp né fofu le daraja ji ne fofu le xaalis bi né fofu le puukare bi né su ko defee mun na am ño xam ne pour nek sa wette ak fu pouvoir nek rek da koy sétlu rek ci différentes man nañ la yakal sax xol alternance yi ñu am mhm. am na ñoo xamni duñu sori pouvoir mukk mhm. ak fuñ tollu rek falu mhm. ñew ci pouvoir d'accord té nak pour ñu am respiration démocratique fokk mu am ay changement mu am ay bop yu bess yu ñew mu am ay ki yu bess yu ñew mais nak ñu ànd lecc xarañ andi ci mandute d'accord ñu ngi signalé euh, que ni liñu déssé ci waxtu daanaka tul wayé dañu dañu bëgg ñëw juste ci Euh, deux points yu am solo. d'abord dañu euh, procéder ci benn dogal. bu yees euh, bu laal lii di frontière yi nga xamante ni Mali am na ko ak yenn dëkk yu mel ni Sénégal Côte d'Ivoire ak Guinée et cetera après coup d'état bi am na lu génn comme dogal. ci wàllu frontière yeeg yu ni mel. ñu gis ni ci di Goodluck Jonathan xëy na amoon na peut-être nu mu meloon nu mu impliqué woon ci. peut-être euh, cadre médiation nan peut-être euh, li nga xamante mom modi dans le cadre de faire revenir donc euh, la paix et la stabilité dans le pays mais mmh. ñu gis que le président de la république Kiri di au mmh. moins xeyna téwayam ñu ko fa doon xaar en quelque sorte japon yow waron na mëna def peut-être acte de présence par rapport à ce qui se passe réellement ci Mali mmh. ah man Eh, lima gis dal ci mu def ci Mali pour le moment Mali ci bopam la wax rafet nañ rafet lo nañ mhm. Maliens ci sen bop mhm. te eh, gis nani, ni sénégalais tamit di and ak mom ak ñu andul ak momit mhm. rafet lu nañ ko. te sama gis-gis nonu rek la mëna démé ndax suñu digënté biñu am ak Mali ñun mënuñu xol Mali comme ni nyenen ñeneen mëna xolé

Euh, macha allah mën d'al, ni daal euh, mën nañoo rafetlu li nga xamné goutlok Goodluck Jonathan obtenir n'ako. ko. Mhm. problème biñ am. moy transition gëm nga ko mu gaaw te yomb. sama sama gis-gis moy feebar bi nga xamné Mali feebar n'ako. ak euh, complexité bi nga xamné mom la crise bi am. ak contexte sécuritaire ak vulnérabilité bi nga xam ne la aussi bien Mali que lii di aussi euh, région bi war na tax il faut ñu xalat té xalat bi man sama gis-gis de euh, que maliens yi li nga xam mom lañuy wax pour sen transition ñu bàyyi ci xel waaw parce que ñom xam nañ sen réew xam nañ sen jangoro dinañ ko utiliser donc dañ bàyyi xel ci liñ wax euh ñaareel bi moy transition bi na né civil il faut que civil sama xalat day je ko war diriger. Mm-hmm. mu ne ko ñu et ku baax. Mm-hmm. ku mm-hmm. ba y ministère sécurité la. défense nationale administration. Yo yu nañu ah militaire mais ci sama gis-gis euh, vraiment sama sama il faut civil yi parce que aussi euh, communauté internationale bi ñu ñu par exemple si projet yi nga européenne pour former militaire. yi. Mhm. Euh, projet de de coopération yu euh, américains yi ngi mhm. donc il faut ñu nous ba nga am confiance. Mhm. à la fois pour africains c'est très important la démocratie mi ngi ñew état de droit dina sécurité dina dellu si lu am solo la ba paré aussi fexé ba nga xam tamit africains yi dañuy déggoo set nan lañuy jappalé Mali. G5 rek doyul. <laughs> d'accord euh, question bu mujj bi euh, président africain yi jamono ji ku melni Alassane Dramane watara bu yàggul euh, déposer sax li nga xam ne di candidature am parce que amna genre wax waxet bu mu fi jotta a def nan nga jangaté lolu est-ce que tay nekul lo xamanteni xaw nañu tënk en quelque sort ci li nga xam moom moo di démocratie bi ñuy woote. sama gis-gis benn mag la te xam nga bi muy jëkk a ñëw xam nga boo nekkee kilifa sa kaddu boo ko joxee dafa war a sacré. Mm-hmm. bi muy jëkk a def campagne de campagne électorale je me rappelle. Mm-hmm. moom ak Gbagbo ay 2010 2011. Mm-hmm. dafa ne moom benn mandat lay bi mu defee benn mandat man daan naa dem di dellu si liggéey dafa liggéey bu rafet. dëgg neex yàlla boo demee infrastructure yi ah Côte d'Ivoire dafa dundaat. Mhm. kooku bi mu ko defee ñaar it dundaat na dund bu baax xam nga am na loo xam ne boo demee ba pare nga def ko am na nag fu mu lajj. Mhm. fu mu lajj mooy jubale ivoirien mhm. ñu nekk benn foofu lajj dafa lajj bu metti li nga xam ne mooy réconcilier te loolu moo ëppoon solo. maanaam bi mu ñëwee ak moom li mu pour ag foofu ak li adina bi daj. pour mu ag foofu. waaw bi mu defee ñaari mandat dañu won ki bu ñëwé mu ngi jógee banque mondiale mu ngi nek gouverneur banque centrale mu nek cadre bo xamné ci kaw su ñëwé rek dana doxal démocratie. Mhm. doxal état de droit wayé gisunu lool tay condamné na ki di Guillaume Soro mu né ancien ancien premier ministre. Mhm. né ancien président de l'Assemblée nationale. Mhm. nga condamné ko ni du bokk. xam nga attention. Mhm. nga jël Gbagbo ancien président de la République. Mhm. pendant plus de 10 ans mu dem ses pays ñu ni ko xol ni ko légui bàyyi nañ la mun nga dem sa réew. Mhm. passeport sax mënu ko am Manam mu nek apatride. xam nga yooyu yëpp day indi tension. ba paré mu bolé ci né non ma moom jël na kiyam am du ko nekk. xam ko nek parce que fim ko wax def sax dafa solennel si Sénat bi. léegi mu dellu si waat gis nga bés bi mu ci dellusee rek ak manifestation yi mhm. indi na fukki nit ak juróom yu dee mhm. li ñu jàpp ci ay jigéen moom nee na jëwriñ jëwriñam bu mujj bi génn àdduna ak euh, xëy na peut-être soxla ivoirien yi moo ko moo ko gën a poussé mu changé avis waaw kooku nag loolu wax ci investiture xam nga euh, Côte d'Ivoire am na 17 à 18 million d'ivoiriens mhm. su fekkee na ci ñooñu ak li mu toog yëpp warna na defar ñoo xam sax warna na mat 500 wala 100 yo xam kumu ci joxoñ mën nga dawal mën nga dawal Côte d'Ivoire té loolu donc lolu prétexte la daal. <laughs> bare nañu mu kii ay vice président xamna xam ne ñoo xam sax gedd nañ. parce que il faut Côte d'Ivoire dafa né réew mo xam tay man buma ma di déglu yenn cassette ak ay vidéo yo xam discours de haine bi mi ngi ñëw. les problèmes communautaires mi ngi ñëw. ak ak doolé bo xam mom la am té lolu yépp dafa mësu a yàq Côte d'Ivoire. Mhm. jaru ko. dëgg neex yàlla jaru ko parce que mun nañ am Mali rek mais bu ñu amee Mali mu am problème ñu am Côte d'Ivoire mu am problème ñu am Guinée am problème. Mhm. mais dañuy exploser. Mhm. tiitoo ci ëllëgu Côte d'Ivoire d'après ni mu. ni commencé tiit ni mu commencé moo tax ñun li ñu wax ci Côte d'Ivoire mooy ak Guinée ñoom nañu dal reporter seen élection yi. Mhm. dajaloo waxtaan. fexe ba nga xam ni. lépp lo xamné dafa jëm ci élection yi ñëppay bokk d'accord né li ñi tëral. ñepp ci am. jàppoon syndrome bobu non gerte len du du am fi ni Sénégal. Sénégal la waxtaan <laughs> xam nga lolu sax xam Sénégal sax amna cadre bo xamni ñu ngi waxtaan tay nee nañu par exemple euh, parrainage. qui supprimer nañ ko supprimer nañ ko. Mhm. c'est que bon Sénégal ci bopom day tirer leçon yi nga xam mi ngi dem feulé contexte bi dafa changer mhm. Sénégal bi ñu amee démocratie ak légui yag na fi kenn mënu fi ñëw né man luma neex lay def.

ñun am naa yaakaar ne ak euh, euh, nii ñu suñu démocratie bi tëdd ak li nga xam ne aussi moom la ñu euh, hérité mhm. yaakaar naa ci héritage muy traditionnel muy démocratique mhm. peut-être que dinañu ñu gën a sàmm d'accord te dinaa yaakaar ni aussi suñu ñi nga xam ne mooy suñu dirigeant yi mhm. dinañ am lucidité boo xam ne am aussi xam-xamu xamu réew mi ak askan boo xam ne erreur yi nga xam ne def nañ ko feneen ñoom duñ ko def. jërëjëf en tout cas ñu ngi lay jaajëfal ci euh, pertinance su réponse yi ak aussi sa disponibilité à chaque fois wax dëgg yàlla bu ñu la nemmeekoo euh, jéem la woo rek après incha allah di nga doon kuy répondre favorablement ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di la ci remercier ñu bàyyi la juste nga tàggatoo mbokk euh, mbokku internet yi. voilà internet yi daal lenn rek laay laay wax mhm. li nga xam ne la ñu war a tabax tey. nous avons une crise bi une crise malienne crise régionale communauté du communauté chef d'État taille. communauté bi communauté citoyen CEDEAO une communauté des citoyens de la CDAO pour am ba paré li nga xamné mo nek ci suñu charte bi ñu sét nak lañuy ñuy ba nga xamné ne ko gëna dëgeural pour que li nga xamné mom lañuy dund muy crise de la fonction présidentielle moy crise exécutive bu gëna a bu grave ak crise bi nga xamné mom lañuy am au niveau de la justice ak crise bi nga xamné mom lañuy suñu institution parlementaire yi am ñu sét nak lañ koy dëgeural parce que séparation des pouvoirs moy état de droit té état de droit fu mu am rek dina tax ba nga xam ne nga xamné moy surpouvoir yi nga xamné mom la chef d'État yi am wala état sans limite chaque fois dañ leen nan fi nga yam lool su amé rek dañu ar suñu rew dañu ar suñu région merci encore une fois di la jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen it euh, mbokk internet yi di leen jox dig dajé euh, ci fan yu yees ci benen entretien merci